caaw Baldé Keita di ab international sénégalais nekk foofee sa championnat bu eh, Italie moom Diao Baldé Keita ginnaaw ba mu defee li nga xamante ni mooy retouram ak équipe boobee ñu naan ko Cagliari ginnaaw bañ ko opéré moom Diao Baldé Keita di ab attaquant international sénégalais si dégg démb rek wala sax si weekend bi ñu génn moom rek demoon nañ a fekk ji euh, équipe boobee di Sao Salo moom Diao de Keita ak équipe bam boobee mu nekk ca Italie ñu ko naan euh, Cagliari moom l' international sénégalais boobee rek bokkoon na si jour yi nga xamante ni moom la coach bi tànnoon euh, ngir ñu bokk sa jogante ba maanaam ay titulaire ginnaaw ba ñu déplacé dem foofee ca pelouse bu Sao Salo ngir jogante li nga xamante ni mooy championnat bu Italie waaye nag si jongante boobee rek ñi di waa Cagliari dañ leen mëne woon euh, benn bal si dara mu doonoon match bu metti loolu si ñoom waaye nag ginnaaw attaquant international sénégalais bi rek moom mi nga xamante ni jamono ji sax mooy attaquant vedette bu Cagliari moom rek moo euh, loole moo a tax muy wone boppam di pousse ngir dugal li nga xamante ni mooy but d'égalisation bi waaye nag Diao Baldé Keita dafa mel ni rek dafa mujjee xamante ni bii bu extraordinaire la ndaxte magnifique reprise de volée moom rek centre boobee rek la ko kii indil kuñ naan Nandez moo ko indil centre boobee rek si la reprise bal bi rek bal bi dugg ci kaan yi à la quarantième minute si la sax ñii di waa Cagliari égalisé maanaam yi ak Sassuolo banaaw ginaaw ba ñuy témboo benn bal ku nekk la dugal sa moroom si première mi ba bii boobee rek ku ko dugal. nekkul kenn ku dul euh, doomu Gaynde Njaay boobee rek di ab attaquant euh, international sénégalais naam sax match yi rek ak équipe nationale bu Sénégal daanañu ko faral di gis wala rek bu ñëwee deuxième mi-temps ba wala rek Ismaïla Sarr ak Diao Baldé bu kenn absenté rek moom mu Ismaïla Sarr ak Sadio Mané bu kenn absenté rek moom Diao Baldé la ñuy gis amagul temps de jeu ak équipe nationale bu Sénégal waaye jamono ji rek mbokk yi lu leen xamal mooy lancer de la jeu de mu ngi def ak kéemtalaay national bu Sénégal ginnaaw bi yooyu rek muy dugal ak Cagliari mu doon sax ay bi yi nga xamante ni moo tax mu nekk meilleur buteur ak équipe boobee di Cagliari Diao Baldé Keita jamono ji may wax ak yéen rek ginnaaw ba mu jugee si li nga xamante ni mooy blessure am bokk na si joueur yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci itali rawatina si clubam boobee ñu naan Cagliari